bàyyiwut benn tarixa nag waaye day mel ne kon bu tànnee Serigne Babacar Sy Mansour bi nga xam ne mooy alxalifatul maam di tarixati tijaniya tudd ko ci tuddaale nag këri diine yépp bàyyiwut kenn muy suñu mbokk yu tedd yi nekk Kawlax di njaboot alxaaji Abdullahi Ibra alxaaji maam Abdullahi Niass ak di waa suñu bokk waa Njaasaan ak njabootu Cheikh Omarou Fouti ba ci njabootu Laayeen ba ci suñu mbokk waa Canaba bàyyiwuñ kenn ndax boo xasee lim sax dangay ngay juum li wolof di wax naan ku lim fàtte waaye kon buñ ci tuddee suñu Babacar Sy Mansour ala rasihim tuddaale nañ ñëpp di ko santit bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne waxtu ne mi koy yëkkati ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci rafetal ngir bëgg lu gën a bokk gi ak lu gën a dëgëral diine ji kon sëriñ baa ngi koy sant moom itam di ko gërëm di gërëm ki kilifa diine yépp ci seen taxawaay ci réew mi ak ci seen taxawaay ci musiba mi suñu borom wàccee ci kaw suuf muy mbas mi moom moom mi mënees na ci wane taxawaayam ndax àdduna sépp xam nañ itte ji mu ko jox ak taxawaay bi mu ko jox kon ñu ngi koy ñaanal mission bi nga xam ne doon na ko ci ay magam doon na ko ci ay waajuram doon na ko ci maamam yàlla dimbali ko ci mu àggale ko ba lépp ni mu ko yéenee ndax daaw na gën daaw sëriñ bi yónni na fu mu wax kàddu yu rafet mu wax ne waxal Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ko na xam ne gépp kàddu gum dégg te méngoowut ak kàddu gu rafet bàyyi ko fii bu fi tuddoo wut bokk ci njaboot ga te xam naa ne li am fii mu am foofa loolu waxu ko yam ci waaye mi ngi koy jëfe kon sëriñ baa ngi koy sant sëñ bi li de sëñ ni mooy dugg duggante Tuuba ak Tiwaawan benn baat bu ñaaw du jóge fii jëm Tuuba benn baat bu ñaaw ñimewuñu ko te yaakaar naa ni Touba it ku fa dégg ndigal benn baat bu ñaaw doo ko yëkkati jëmee ko fii. ngir ñam mën di jot vidéo yu am solo yi bàyyi ko fi ci Xidma Production da ngay fii ñuy wax sabonné boo noppee ñu teg ci kolos bi. عن درر وكذب ما داني الأسى ودر خدمة بهدي شمو لا تيم دي مغدي شمو